ramadaanangi weru yërmande ramadaanangi weru njëggale ramadaanangi aha weru yërmande ramadaanangi alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ci koor gi di ñaan yàlla mu nangul ñu nangul leen buñ dellusiwaatee ci jataayu koor dañuy àggale nettali biñ tàmbali woon ci xew ci nettaliw dund yuusuf alayhi salaam nga seetlu ci ni yuusufa di waxee ak baayam complicité bi ci nekk suy wax dana yaa abati kii ne yaa bunayya yow sama baay yow sama doom yow sama baay yow sama doom nga sentir jege bu nekk seen diggante ñoom ñaar ndeysaan jegante boobu ñu jegante woon feeñ na ci ni ñuy waxee ñoom ñaar baayam ci dégg bu mu am ci li Yuusuf li ko Yuusuf nettali xamal na ko ne yàlla dina ko jox cër boo xam ne bu ko bàyyee bu ko bu ko doomu doomu doomu bàyyi mi yéegee yëg xew-xew bi yëg ne loolu la koy jurali ji soo moytul dinañ ko sànk te seytaane dina ci dugg rafetal la leen jëf boobu gën leen a tiital ci seen ci seen mbir ak seen avenir jaxase seeni xel ba def loo leen lu ñaaw loolu loolu bàyyam wax na ko ko moo tax mu ne ko wa kadalika yajtabika rabbuka wa yuallimuka min tawil al ahadith wa yutimmu nicmatahu alayka wa ala ali yaquba kama atammaha ala abawayka min ibrahima ishaq mu expliqué ko ci aaya boobu la ko résumé la yooyu nga xam ne yëpp déggee na ko ci mbiru yusuf ci lu ko yàlla di defal ji ci li ñu waxoon ci yonent gi ko yàlla di jox mu nekk yonent ak ci jàngal gu mu koy xamal moom yàlla tekki gént ak firi gént te loolu nekk bunt boo xam ne nit ñi léegi dañ ciy dugg di ci xaabaabal jël ay téere yoo xamante ni ay règle générale lañuy ñuy jël te gént kenn du ko tekki ci ay règle générale boo gisee ndox li lay tekki boo gisee fas li lay tekki boo gisee safara lii lay tekki gént gu nekk ak nuñ koy tekkee ndax nit ku nekk ak mbiram nit ku nekk ak bakkanam nit ku nekk ak jamono ji nga xam ne ci la gént gént bi gént bu nekk li ci aju ci circonstance beeg la ca laxasu ci nga koy mën a joxe tekkin mais mënoo jël yenn mbir yoo xam ni ñaari nit yu bokkul ci anam yu bokkul ci jamono yu bokkul ñoom ñëpp gént ndox nga bëgg ko jox benn sens bi ñoom ñëpp gént fas nga bëgg ko jox benn sens bi genre tekkin yu mathématique yooyu ñuy def ci jamono doy na waar ñenn ñi jël ko def ko liggéey te nekkul loo xam ne lees mën a dogu la bu dee yonant yi nga xam ni naam ñoom seen gént dañ naan lu wér la lu jóge ci yàlla lu leen yàlla di won ndax seytaane du foowe seen xel bu ñuy nelaw yonant yi yàlla moo leen protégé ndax wax yu bi mu leen di jox muy jóge ci moom moo tax yàlla subhaanahu wa taala aar leen ci loolu moo tax li ñuy gént day wér na li ci yàlla la jóge bu dul bu dee ñeneen ñi nga xamante ne duñu ay yonent tamit liñ ciy mën a foog di ko ca wax nit ki da ciy war a teey def ci ndànk ndax waru ko ba xam ni mu ko interprété ni noonu la wala du noonu te itam léeg-léeg dugg gi ñu ciy dugg xaabaabal ci te gént daf ci am loo xam ne ci yàlla lay jóge am ci loo xam ne seytaane moo koy tàbbal ci xolu doomu aadama la ci xelam am ci loo xam nit ki li muy dund ci ay problème ak ay jafe-jafe ak ay bëgg-bëgg ak yooyu bu tëddee guddi moom la xelam di jël di ko togg mu koy mel ne lu koy gis ça n'a rien à voir lu ko yàlla di joxoon lu ko yàlla di woon ci bakkanam la jóge moom ci boppam léeg-léeg nag loolu yëpp la gars yi di jël jaxaseendoo ko bëgg ko jëf bëgg ko jëflanteeg moom benn jëflante voilà loolu dina dina jafe trop moo tax lu jar tey la ndax ñu bari ñu ngi leen ciy jaare di leen yóbbu ci ay njabar ak ay gisaaneeg yooyu parce que dañ nit ñi dañu lay ñoom dañ lay gaaw mën a tiital ci yooyu di la defal ay prédiction yoo xamante ni bi yu doy waar la naan la lii di nga gis tey lii la war ngaa génne sarax war ngaa def ak ñaan war ngaa lu war ngaa sangu war ngaa def lii yooyu yëpp pour gën la tiital luñ la gën a tiital di la gën a jàpp di la gën a jekku dugg sa dund fuñ toll ñu ngi lay tiital di la wax yoo xamante ni lii am na looy séentu waaye soo moytul dina tas ndax dafa am ci laxasu faw nga génne lii faw nga def lii yooyu ñu lay génne loo boo seetloo ay sarax lañ koy tuddee mais waxoon nañ fi ne du sarax sarax bi yàlla digle mooy nga jël lenn ci sa njariñ xool ko ñàkk nga dimbali ko jox ko ko xool fu baax fu yàlla santaane nga jël ko jox ko fu mu jariñ jaam yàlla yi nga def ko te yàlla tax loolu mooy sarax may jël yoo xamante ni kenn xamul lan la ay ay juróom-ñaari sondeel ay juróom-ñaari guro yu xonq guro yu weex ay jël ay perkal jël ay ay ay ndox fanaanoo ko boo yewoo jikkoo koo nga jëkk dajal jox ak yooyu loolu yëfi jinne la yëfi seytaane la te loolu ay offrande la tudd maanaa looy génne la pour neexalee ko jinne yi te jinne loo leen di gën a neexal ñu lay gën a not saa bu ñu la digalee ne la génneel nangam nga génne ko jeex na xam nañ ne kon yow yi mii léegi jàpp nañ la jekku nañ la lenn li ci des tamit mooy yi nga xamante ne léeg-léeg ka la ko digal moo la koy digal pour di ko lekkee sa alal ndax danaan la man boo ma ko joxee mën naa koo génne dangaa war a génne nàngami xar war ngaa rey nag war ngaa def lii bu ñuul bu nàngam sàngam jox la ko ci façon bu compliqué boo xam yow doo ko mën mën na la léegi boo ko joxee xaalis bi mu def ko ya ca nekk yàlla rek moo ko xam mais daal mbir la yoo xam ne yu dooy waar la surtout lu ci nekkaat ci di rey di rey ak di tuur deret ci loo xam ne defoo ko ngir yàlla danga koy def ngir neexalee ko ay jinne loolu loolu lu garaaw la moo tax nag buntu yooyu nekk buntu yu jar tey ñenn ñi dañ ciy ñëw nax nit ñi ci wane ne ñoom yàlla da leen may xam-xam xam-xam alxuraan lañ yor di làkk ay arab ak di wax boo leen déggee yaakaar ne ay sëriñ lañ yoo xam ne ñoo jàng fekk ne njabar la ñuy def voilà voyance def. waaw ay gisaanekat lañ ay buxaabakat lañ fi nga koy xamee rek mooy boo déggee ci xeeti ñaan yi ñu joxe ak xeeti sarax yi ñuy génnelu am na ci yenn xeeti sarax yoo xam ne boo déggee nit di ko génne rek xamal ne mu ngi ci domaine la asraar muy ésotérisme xam-xam bu ñuul mi ngi ci voilà foofu foofu nga koy xamee mais malheureusement nit ñi bu fekkente ni seen xam-xam ci diine taxu ko demee noonu pour ñu mën a am niveau ràññetle ñaar yi xam kiy waxee ci diine di wax ci domaine u yàlla ak ki nga xam ne dafa dugg ci xam-xam bu sew bu ñuul boobu léeg-léeg nit ñi duñ leen mën a xàmme dañ naan rek yàlla may na ko boroom xam-xam la moom day joxe ay ñaan moom day nàngam loolu lañuy ñuy wax mais du ñu xam dëgg-dëgg ñaan googu ñuy wax ak garaam bu bëngu rëy googu kurusam bi mu yor lan moo nekk ci ginnaaw nit ñi duñ ko xam moo tax lu jar tey la lu jar def ndànk la léegi Yusuf alayhi salaam bi nga xamante ne mbiram demee na noonu ñu jàll ci gént boobu mu nekk ci digganteem ak waajuram ñu nëbb ko waaye li waajuram doon ragal ci gént bi bu fekkonte ne waxoon na ko frère am yi xoolal ginnaaw bi ni ko yàlla di dëggalee ci sax leneen lu bokkul ak loolu lu gën a tuuti loolu li gën a tuuti loolu mooy li yàlla wax ne mbiru Yuusuf boo ko dee seetlu am na lu ci nekk ci ay tegtal yu bari ndax nee na dafa jékki-jékki gaa yi waxante ci seen biir am benn interpellation bu am yàlla ne id id qaala id qaalu laqad kaana fi yusufa wa ixwatihi ayatul lisaa'ilin id qaalu ñu daal di wax ne ñoom ñoom seen biir ñoom feeram yi la yuusufu wa axuhu ahabu ila abina minna wa nahnu usba inna abana la fi dalali mubin dañoo def benn constat bu ñu def ñoom mooy dañoo wax ne waat nañ ne waat nañ ndax lam bi ci duggum ci yuusuf moo tax waat nañ ci yàlla ne yuusufa ak rakkam ji di benyamin rakkam ji ñoom ay frèram lañ waaye bu ñu waxee frèram liñ ci ne mooy frèram bi mbokkal yaay ñoom ñaar la suñu waajur ñoom ñaar la suñu baay suñu pàpp a gën a bëgg te pourtant ñun mbooloo lañ ñun mbooloo lañ mën na tekki na nahnu usba mooy ne ñoom ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo bokkul ak yuusufa ndey ñoom mbooloo lañ ay mag lañ ay kilifa lañ ay mbooloo lañ bu dee gën a bëgg rek ñoom lañ seen baay seen waajur waroon gën a bëgg ka yuusuf ak frère am bi ndax xëy na njariñ bi ñu jàpp ne mën nañ ko amal seen baay yuusuf ak frère war koo mën a amal wala wanax naxnu usba mooy ne ñun ñëpp mbooloo lañ ñun ñëpp ay frère lañ lan moo tax mu ciy seppi ñaar di leen gën a bëgg léegi gën a bëgg googu dañ ko cee condamné ne inna abana la fi dalali mubin moom ci li mu nekk ak réer la tegul ay mbiram ci yoon kon dañoo jàpp ne seen bàyyi dafa tegul ay mbiram ci yoon jubul mànduwul loolu ñoom seen constat la bu ñu def mais léegi ñàkk a màndu googu ñu koy tuumaal lan moo ko waral lan moo ko waral ñenn ñi nee nañ li mu xamoon ci Yuusuf ak ci Benyamin ci li leen yàlla defal ci mbaax goo xam ne nekkul ci ñële moo tax mu bëggoon leen beneen bi ci des mooy féete gi ñu féete woon ndaw nekk ay xale mu jegeel leen boppam mu jegeel leen boppam ndax dafa leen ñeewantoon ñeewante gi mu amoon ci ñoom moo tax léegi nag jege boobu mu leen jegeel boppam loolu moo jur jalousie bi nga xam ne moo dox muy fiiraange gi dox ci diggante euh, diggante frères yi muy benn xeetu xëy na soxor guy am loolu tamit léeg-léeg day am ci kër yi moo tax bokk na ci yi ñu jàngee ci taxawaay bi mooy waajur mën na gën a bëgg lenn ci ay doomam ndax xol moom léeg-léeg contrôler ko ci loolu day jafe ndax ki la gën a déggal léeg-léeg gën laa fonk gën laa bëgg wala léeg-léeg yàlla def xëy na yenn qualité yi ci moom te gisoo ko ci ñeneen ñi loolu naturellement mën na tax mu am attirance bu am jëm ci moom nga gën koo bëgg waaye bul ko di feeñal trop. ndax mën na yàq sa famille déstabiliser ko ci déstabiliser ko indi ci ay problème indi ci ay xiiroog nga yow ci biir doom yi te dara du ko waral lu dul seytaane mooy ñëw jëfandikoo loolu ci ne suñu waajur daal mu ngi nii moom lan moo tax mu gën a bëgg kii nan te ñun nangam sangam ak yu mel noonu léegi loolu mën na indi ay problème ci biir famille léeg lekk moo tax bañ koo feeñal ci kaw ci benn façon feeñal bi moo gën donte moom léeg-léeg nit ki bu feebaree ci xolam feebaru soxor ak keñaan nekk ci xolam kenn mënu ci dara ndax léeg-léeg yàlla li muy defal nit loolu tamit léeg-léeg du neex a nëbb léeg-léeg yenn <laughs> ngëneel yi yàlla di defal ñenn ñi ci biir famille buñ ko bëggoon nëbb sax duñ ko woon ndax yusufa taar bi ko yàlla joxoon rek boo ko gisee rek bëgg ko taar bu rafet boo xam ne bu jéggi dayoo ak la ci àndaat ci jikko yu rafet ak mbaax ki ko yàlla teel a defal bu nekkee xale yàlla di ko woon ay gént di ko préparer ak loolu loolu ñoom amuñu ko te day nekk loo xamante ni des fois lu flagrant lay doon loo xam du neex a nëbb léeg-léeg nag loolu nag bu dajeek ñoo xamante ni seeni bakkan sellul seeni xol setul am na lu ca nekk ci wàllu soxor ak yooyu facilement dafay nekk lu voilà cocktail explosif lay doon boo xam ni dafay daal di indi ay problème ci biir famille bi nga gis yenn xëccoo yi tiraillement yi ah, ak jàppante beeg yu bari di ci am waaw dem dee dem ba day sax yi léeg-léeg yàq mbokk bi li nga bi wax nañ ko moom ci la mbir mi tàmbalee nag léegi mooy dañoo constaté ñoom benn mbir buñ buñ jàpp ne ni moom mooy problème bi mais dëgg dëgg dëgg du problème bi parce que ñoom waa seen waajur lañ jiiñ ne moom moo gën a la yusufa ci seen kaw mais dinañ dem ba xam ne ki gën a la yusufa ci seen kaw du seen waajur yàlla la ndax dinañ dem ba ci jamono ñu ne ko tallaahi laqad aatharaka allahu alayna waat nañ ci yàlla ne yàlla gënale nañu ci sa ci suñu kaw yàlla gënale na la ci suñu kaw dinañ dem ba waat ko mooy buñ bu ko yàlla joxee lam koy jox bañ mujj dem fekk ji ko Égypte ba mbir mi lépp leer ci lañu soog a reconnaître ne ndakate ngëneel gi ci yàlla la jóge foofu duñ fa tudd seen baay problème bi xissa ci commencement bi li problème bi di jaxasoo yépp seen baay rek la ñuy wax di ko accuser di wax ne moom la moom la moom la waaye bu demee nag ba yëf yi dépassé leen ba yëf yi leer ci la ñu soog a xam ne mbiri yàlla la foofu moom dañ naan laqad aatharaka allahu alayna wa in kunna la xaatiin ñun ci njuumte lu rëy lañ nekkoon yàlla moom moo la yëkkati loolu nag lañ reconnaître lu doon lool lu muy tekki kon mooy saa bu nit ki ñàkkee nangu ngëneel gu yàlla defal nit na xam ne dugg na ci coono ubbil na boppam buntu fitna moo tax nit ki bu bëggee noppalu am xol bu féex xel mu dal lu ko yàlla jox mu nekk lu ko doy sëkk bu tëddee nelaw na féexal xolom bi ci xéewal yi yàlla defal jaam ku yàlla jox wallahi ñaanal ko yàlla na ci sa xol sedd ndax moom mu ñàkk ko du tax yow nga am ko mu ñàkk ko du tax yow nga yokk naam boo sañoon xéewal yi xëy na yàlla defal la yow itam du ni mel waaye soxoree ko ko moom iñaanee ko ko moom amul benn njariñ lu dul sonal la ak lor la moo tax ñeneen ñi wax ne soxor nit ki ki ko def moo ci gën a loru ki nga xam ne sax moom la koy def sonal sa bopp ci loo xamante ni yàlla moo ko def te soo moytul nit ki day soxoree nit kooka yàlla di ko gën a yokk moom muy gën a sonn di gën a souffrir te soo moytul dina ko jural ay bàkkaar ndax bàkkaar yi mooy li nga xamante ni frère Yuusufa yi def nañ ko buñ demee ba yëf yi dëgër ci seen xol ba àgg fenn fi dañuy daal di jug nag léegi commencé di wax ngir dénigrer nit kooka di wax ci moom pour yàq yaakaar ne dañ koy yàqal wala yu mel noonu di ko critiquer di fekk ne soxor gi nekk seen xol yi moo leen di wax loo lu sax li ñuy wax réalité dëgg dëgg dëgg lu am la wala lu jar wax la wala lu àgg ci niveau bañ koy waxee la mais soxor gi la wala léeg-léeg sax ñu jóg di jëf pour xool nuñ ko mën a yàqalee ak yu mel noonu loolu moom mooy li am ci mbiru frère Yuusufa yi mooy ña nga doon wax ne moo suñu waajur moom moo ko gënale rek moo tax muy cëppi cëppi di balballu suñu kaw waaw booy bi dafa da ngay waaru lu mu lu mu nekk fii dégg paa bi jàpp ko def ko lii da yooyu da koo gatee da koo lii dugg na fii foofu la ñuy tàmbalee ci ne mbir mi dëgg-dëgg paa bi la voilà léegi nag comme nii la deme affaire yi mi ngi ñuy bëgg a sonal léegi nañ xool booy bi nañ ko sànkee voilà nañ débarrassé wu ci moom booy bi mooy Youssouf voilà mooy nekkoon léegi buñ ko contextualiser xool ni ko nit ñi di waxee suñu jamono yi yu mel noonu la voilà. li liñ waxoon mooy yusufa ak fereeram bi suñu waajur moo leen gënal waaye xam nañ ni dëgg dëgg dëgg moo leen gënale ci ñun waaye xam nañ ñi problème bi dëgg dëgg dëgg du Benyamin Yusuf la Benyamin da cee ànd rek mais Yusuf mooy problème bi comme Yusuf mooy problème bi nag nañ jéem a xool nu ñu tàqalikoo ak moom nañ ko tàqaleek suñu waajur ndax jàpp nañ ne li ñu ñàkk suñu waajur rek Yusuf mi ko jege nekk ci wetam moo ñu ko xañ léegi bu ko gisatul ñun dinañu jox suñu àq jox suñu gëdd loolu mooy erreur bi mooy yaakaar ne xéewal gi mu am nit ki soxoree ko ko bu góorgóorloo ba xéewal googu dañ moom léegi dina am moom li mu bëggoon wallaahi bu nit ki duggoon def ay kër kër ba xéewal googu kooku ñàkk ko itam du tax mu yokk ko lu mu am du tax mu yokk ko lu mu warul am te loolu dina feeñ ci lii di ñëw ci bi ñu góor góorloo di fexe pour jéem a sànk Yuusufa ci jamono jooju waxuma la sax ci lañu amee lañu bëggoon ci seen waajur jox leen yitte waaye ci la seen relation ak seen waajur amee problème ndax seen waajur jël ci naqar ak mer moo xamante ni dox na seen diggante ak moom ñu gën koo sori seen famille am ay problème manque de confiance am seen diggante ak seen waajur seen waajur wóolootu leen naam mosu leen a woon wóolu ci Yuusufa waaye mu gën leen wóoloo diku beneen bi ci des ñoom seen bopp ñu nekk ci ay jafe-jafe jafe-jafe jafe-jafe kañ doon jéem a fexeel yàlla yëkkati ko yàlla yokk ko loolu di la wan ne la mbiru suñu borom lu doy waar la moo tax jaam bi gëm ndogal jaam bi sellal xolam ci bunt bi dafay noppalu waaye bu ko deful rek dina sonn te dina soo moytul def loo xam dina ko jural ay bàkkaar yàqal ko dundam te du ko amal njariñ kon foofu la ñuy taxawee ba suñu jotaay bi di ñëw insha allah ñu àggale waxtaan bi ci xew-xew yusuf hada wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullah ramadaana ngi weru uh-huh. yërmande ramadaana